asalaamaaleykum mbokki internet Siweulko TV uh, ginaaw bi ñu leen nuyoo kenn ku nekk ci tour uh, sa sant di leen di bëggee te di leen kontaanee bu baaxa baax ci li nga xamné ni ñu koy suivre suñu plateforme ñu ngi leen di ñaanal jamm ci sax ndax di ko sàkku yeen ginaaw bi ñuy kontaanee bu baaxa baax ak mbékté bànneex banex naa la ñu and ak yeen tay dañ leen indileetu lu bess te nee naa la lu bess day daal di neex comme niko wolof di waxee sur un nouveau numéro ñu di leen benen star beneen international uh, benen professionnel boo xam ne nii tey nee naa la di doomi Sénégal euh, di doom wax aussi euh, ñu gën koo xam ci ki nga xam Dibassy mm. Idrissa Dibassy di moins nekk koo xam ne nii nekk professionnel euh, di wéyal lële ci wàllum football fële ne la ci France di nee naa la di évoluer fële ci Fleury 91 FC ah mm. nee naa la mu nekk koo xam ne nii kenn dootu ko nattable fële ci France ak fii nii ci Sénégal ndax amaana doomi Sénégal la waaye tamit ma ngay wéyal wàllum football fële ca France waaye ba du ma def lu dul bàyyi ko mu nuyoog mbokki internautes yi nga xam ne ñu koy suivre en temps mu daal di leen di bëggee ndax ñu gën a xam kan mooy euh, Idrissa si maa ngi leen maa ngi lay ziar Baye Fall bi ñu ngi sant bu baax euh, saa yi moon nañ la de ñoo raw lu bari gaa ñu ne la laa gi ci gis <laughs> waaw yàgg na moom ñu <laughs> nii rek ba jàmm la war rek waaye sant rek nekk si côté côté yi rek alhamdulilah ma daal di lay bàyyi nga nuyoog mbokk internet ñu leen ziar c'est Idrissa Dibassy footballeur professionnel euh, nekk FC Fleury 91 c'est France waaw ñu ngi nii daal. <laughs> yaa ngi nii daal mais Idrissa Dibassi, euh, gaañ ñi ko xamul euh, à travers l'internet kan mooy Idrissa Dibassi waaw Idrissa Dibassi, ben ndaw la boo xam ni Mbour la commencé football particulièrement sama koñ Grand Mbour mais nuyu de passage le la lépp commencé. Mhm. commencé nawetaan commencé nawetaan depuis xale à l'âge de 18 ans.

parce que boy ñëw temps d'adaptation bi du yomb boy ñëw climat bi tout ça do ko miinagum mais après de fur et mesure ngay dem benn un mois deux mois après yaram bi dé commencé adapté wu donc du coup tamit amoon naa xayit boo xam j'avais un pote que parti mom mu njëkk voyager, tout le temps dama ko do woo tamit demandé ay conseils tout ça comme nit and mom moom lay jariñ demander expliquer ma que début ni lay démé ni lay démé ñu nekk ci ba adapté wu dal alhamdoulillah mais lan mo la dougal ci football. wa football je peux dire que bëgg-bëgg la tamit mais mun naa leen tamit tamit sama benn mag xam ne dam kon fu ma juddoo Thiès laa juddoo famille football la koñu football la tamit kër gi ma football dama fekk sama mag ñëpp di football particulièrement sama benn grand frère boo xam ne moo tax ma gën a bëgg football mhm. heure bu yoon joué dem di antenne ak senior yi kare dama ànd maa koy téel dàll yi tout ça mu dem ba doon benn amour daal en fait mhm. depuis loolu may football samay morom nekk samay morom tout le temps samay mag di may woo may football ak ñoom mu dem ba doon benn amour ma xam ne lii kat

mais je peux dire que maintenant, c'est ma famille c'est ma fièvre parce que vu que je suis un le qui a dem ba mom sax gënuma fa dëkk jamono mhm. parce que nous la bok don medina fait tam suñu benn grand de Love mom mhm. tam moo ñu gën intégré ñu dugg gën fa qui nous xayit bëgg ñu ñëw gaay ñu mhm. comme sen dom, donc ñu ñëw parce que buñ yomb ñëw mu gën a rafet moo tax daal euh, affaire yi gën a nice. affaire yi gën a nice mais Diba euh, ñu ñëw ci euh, bi nga signé li nga xam ne mooy pro. Hmm. nekk di évoluer ci ci ci fële na la ci France. Hmm. mais terewul boo amee vacances da ngay ñëw Sénégal. Hmm. ci ki nga xam ne moo la formé. depuis à base. à chaque fois di organiser ay tournois de football. di ànd ak ñoom wàcc sa bopp. naka naka lan lan moo la may loolu ba nga retourné waat ci loolu. waaw parce que gars yi dañu naan foo fàttee fi nga jóge moom. souvent moom ah, waaw noonu la fa demee <laughs> parce mënuma nekk foo xam tey jii lépp foofu la commencé ëllëg da yàlla suturaal la dara a fàtte mais mënoo fàtte souvent mun a comprendre mun nga nga nekk affaire yi xam nga du yomb parce que milieu football na leen fàtte mm-hmm. naa ne ba may joué nawetaan lépp moom koy defal mm-hmm. Babacar Diouf ñu naan ko Mbaye Cissé daal lépp moom ko doon jëndal temps may joué nawetaan kon kooku aw fayam

mais dis-moi, euh, gis que que lay suivre en France avec ce talent avec ce de football Machallah, les mhm. euh, ngay équipe niveau mhm. est-ce que est-ce que est-ce que a dépasser fii. waaw waaw ñu ngi koy nous xel bu baax ñu parce que même si nous souvent sax dañuy gis ça. Mhm. mais tamit as ngay tamit suñu sa place foofu la mais nous, ngi liggéey Mais avancement. parce que loo gis nànk-nànk la. waaw mu ñu xëy rek ne par force da ngay doon niveau professionnel. wala damay mel suba comme partie si may àndal tey jii suñu borom moom foofu la ko tegagum. dañ koy ñaanal moom tam am bu baax. léegi ñu toll tamit dañu jéem a góorgóorlu ba mën a dépasser waaw ñaan yàlla tam suñu borom mu may ñu xam nga lu ñuy ñaan daal mhm. waaw. Euh, waaw base nag man moom aw ma jour. man sama bopp laa gëm.

loolu kenn waxatu ko donc référence la tamit parce que suñu suñu suñu doomu la donc tey ngay dem si biti si biir que monsieur koy comme défense centrale gauche la défense centrale gauche donc la may suivre mais c'est bien euh, ndax comme ni ko rek bala ngay ci bi ci mais tamit euh, xam nga euh, football dafa te am na ay ñoom star yoo xam ne nii bëri nañ ci monde bi. Mm-hmm. Mm-hmm. ci mel ni euh, tey jii nii ay Piqué. Mm-hmm. ay ay Ramos. est-ce que rêvé nga euh, bokk ak terrain. waaw kuy footballeur rek rêvé nga bokk ak yi ngay dégg tey jii xam yaa ngi doon seetaan parce que loolu loolu la ñuy ñaan ba tey jii ba doonee footballeur moom loolu rek ngay ñaan que joueur yi nga doon seetaan terrain nga dem ba tey jii bokk ak ñoom terrain ñoom rek ngay ñaan tey jii moom sama yéene la te ñu ngi si job daal. waaw ñaa ñi ñaan daal daal. duñ nekk ban nga mos a dund ci football maanaam dund loo xam ne tey bi nga footballee ba pare ba match bi jeex. Mhm. tëdd nga nelawoo xoolee nga guddi gi yëpp. Mhm. munoo fexe ba nelaw daal. waaw loolu am na parce que du ñàkk parce que souvent nga doon nga doon bi nga doon jour nga pare si mbenn match sax doo kontaan li nga def parce loolu day am parce que ma me rappelle que même Fleury bi ma nekk mos naa joué benn match boo xam ne match bu baax laa def ba à la benn bal xama rebond nga war a bal bi jël dal ta tànk bi tëb attaquant bi dem dougal parce que défenseur mën nga def match 85 minutes il suffit ben manque de concentration bal bi romb la rek mm-hmm. après tout est à zéro ah waaw mais ay erreur la parce que souvent erreur yooyu si ngay jangat mm-hmm. waaw chaque jour da ngay da ngay jàng si erreur pour mën a jëm si kanam mm-hmm. waaw. mais nek défenseur très terewul tamit ngay dem ci camp yi di dougal waaw loolu amna mais défenseur laa xama tout pour dougal la da ngay dem si kanam pour jéem dougal mais avant tout.

avec sa entourage mais tey jii mënu ma juddoo Sénégal màggee Sénégal Sénégal woo ma demee jouer Congo ah c'est impossible ah parce que là judo c'est sama dëkk là donc bu le Brésil bu taxawoon sa Sénégal teg Sénégal laa jouer parce que moi, sama dëkk moom laa bëgg samay papa fi judo juddoo sama yaay fi la juddoo tu su ma tuyoo tooñ waaw parce que boo tu rek mun nga perte de tout ça ah waaw donc amul vie daal en fait am na vie bu ndaw parce que souvent tu es avec tes amis di nga nekk say xarit tout ça ngeen profité tout ça mais lu bëri bëri bëri bëri entraînement ngay tal dem fu fubali ñëw toogaat noppalu mooy loolu daal yombul daal. Mm-hmm. mais soutien famille bi aussi. Mm-hmm. est-ce que nga am a door amoon nii. waaw am naa soutien am naa soutien soutien bu mu njëkk ma mooy sama yaay parce que avant tout moom mooy lépp. Mm-hmm. waaw parce que tey jii même bu mettee moom laa njëkk a woo ah. mu teg ma si code. waaw parce que tey jii boo amee say waajur sa ginnaaw ñu lay conseil de tout. pour man keneen bu la soutenir sa ñàkk soutien waaw parce que ay waajur avant tout mooy lépp mooy la c'est la base xam nga ut sa ñaanu waajur ñu lay soutenir nga mën a dem si kanam parce que tey jii lu ñuy fayat yëpp suñu famille la tey jii mën nañ fayat sax si mbedd bi nga ko jox sa xarit yi ak sa famille waaw donc euh, soutien yi daal bi ma njëkk am daal je peux dire que mooy sama yaay waaw macha allah euh, yal na ko yàlla gën a wéral a mm-hmm. maanaam tey dañuy topp sa ginnaaw di la suivre foo mën a mhm. nekk ak foo mën di dem rek ñu lay topp. waaw je peux yi maa ngi maa ngi kontaan si ñoom maa ngi kontaan si ñoom di ñu yokk ñaani daal waaw ñu yokk ñaani ñun ñu ngi si kawam ñu ngi job te incha allah daal yàlla baax na peut être suñu borom dina dina leeral lépp. dina xëy na gars yi <laughs> non gars yi damay teg dara seen loxo ah, incha allah ah, non. <laughs> dama bëgg nga teg dara ci loxo gars yi ne leen ah, seen seen seen waajaa ngi nii te tey fi ngi fay

tey jii yàlla may ko ba mu ñëw équipe nationale xam nga gën a performé ñëpp xam ni talent am hmm. peut-être nag gars yi gisaguñ ko ko bu baax gars yi wala ñuy gis yi xaw a laaxatu mais yàlla baax na daal. <laughs> gars yi teewaguñ ci bët. waaw teewaguñ mais ku yow parce euh, dama dama gis benn benn benn benn commentaire. Mhm. mu ne mu ne mu Euh, Sénégalais yi sans xamaguñ ko 100 pour cent. Mhm. parce que fi muy évoluer. Mhm. man jàpp naa ne euh, niveau am romb na foofu quoi. dëgg niveau mhm. mu Sénégal la. te Sénégalais yi dese nañoo xam ki nga xam ne tey gëdd di baax à 100 pour cent. maanaam yow tey loolu boo ko déggee lan la lay def. waaw parce que tey jii ki nga nekk yàggal ki nga yàgg ngeen fubalandoo moom xam na lu bëri te tey jii si fubal lépp souvent lu may rectifier ak lu may lu mooy wax lépp moom xam na. te même bu nit ñee xamagul nag mais souvent booy ànd ak nit ki doo mën a génn di wax parce que boo waxee dañuy yaakaar ki nga àndal moo tax xam nga tey jii su ma génnoon ne Paris yi dañ ko war a woo équipe nationale dañ ko war a woo dañ ko woo gars yi dañuy yaakaar tey jii ngay ànd ak moom tax jege ko moo tax alors que boo xamee nit ki lu mu mën parce que bu ko mën dama mënu ko mais xam ni mu mën moo tax may wax loolu peut-être moom cadre boobu la koy gisee Não, amaguma soxna o waaw waaw waaw waaw yàlla baax na da ñu Não si ñu yàlla baax na ñu ngi si waaw waaw ñu ngi si waaw ñu ngi si rek yàlla baax waaw bal bi kat mooy suñu vie waaw mooy suñu vie tey jii lu ñu bëgg a faj moo ñu koy fajal kay waaw bàyyi nekk si rek waaw boo demee terrain fàtte lépp de macha allah waaw macha allah mais lan ngay wax joueurs yi ndaw yi nekk fii Sénégal mhm. conseil daal mooy lépp patience la rek patience ak liggéey parce que dara xëy du xëy mhm. moom dara ñun ñi tey ji galère nañ nekk nañ fii souvent cent francs dala doon të deux cent dala doon të koy fayet da nekk fii say famille nekk fii mais loolu sax liggéey mhm. parce que je veux dire ba ñuy nekk jàmbaas dafa métti woon salaire bi ngay am c'était pas salaire boo xam tey ji mën nga gérer sa lépp dangay jox sa famille lu lay dese ay parfum nga jënd déodorant mu jeex nga xaar benn mois parce que dara xëy lu xëy sot lépp day metti ah waaw mais faayit la nekk si gëm sa bopp mhm. waaw nekk ci gëm sa bopp mhm. durant bi nga nekkee signé lii di pro mhm. ak moment bi nga nii ah, loo xam ne nii tey lu la neex la boo ko tuddee da ngay sentir ni lii dund nga ko ci football bi te neex la waaw je peux que tey lu ma doon ñaan suñu borom mooy tey jii évoluer Europe am naa aussi xam nga sant tey sant daal parce que nekk say morom tam suñu borom jël la yóbbu la foo xam ne yóbbugu leen fa sant la waaw sant la loolu daal loolu daal ñu ngi ciy sant ba tey jii ak yàlla jàppale la ba souvent li nga bëgg yaa ngi koy mën a fajal sa bopp say waajur say waajur buñ la wooyee yaa ngi mën a jàppale si lu bëree bëri buñ la fëggee quatre matin yenn sax di mën a jox loolu rek sant yàlla la waaw sant yàlla la alhamdulilah euh, sant yàlla mënut a loolu noonu ndax nee naa la borom bu la ko war a santaat bu baax a baax ci li mu nga xam ne may nga la ko ñu ngi lay santaat bu baax a baax ci li nga xam ne accueillir nga ñu ko hmm. fii nii tamit euh, di sa diwaan euh, euh, ñu ngi kontaan bu baax a baax ci mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi suivre en direct nee naa la kenn dootu ko natable ci Sénégal mu nekk doomi Sénégal ak doomi Mbour mais gaa ñi léegi dañ naan doomi Mbour ak doomi Médina <laughs> les deux à la fois waaw les deux à la fois rek ne nag ñoom ñoo la moom <laughs> ah ko partagé ak waa Mbour tuuti rek. waaw ko partagé ak waa Mbour waaw. alhamdulilah ah, wax euh, mbokk waaw di di ñu leen jaajëfal bu baax. waaw di leen ziar. waaw di leen wax ngeen yokk ñaan yi. waaw ñu ngi si kawam daal <laughs> yàlla baax na waaw. Ah, mbir mi daal guddi guddi waaw yaa gën a xam di di nuyu waa Mbour tamit. Mhm. di leen big up. waaw di nuyu di partage sama grand. mais Cissé. waaw di famille bi ñëpp sama xarit ñëpp ñëpp xam ñëpp et tout wax ci waaw violence wax politique moom du sama du sama bagage mhm. mais lu may wax mooy nañ gën a conscient ñu parce que dëkk bi ñun ñoo diriger. Mhm. ëllëg ñu si ñoo ko kon conscient buñ nangu politicien. ñu diriger ñu nekk si mbedd bi di xeex parce que avant a une famille. parce que ku si dee say say waajur ñooy toog di jooy. wala say say am di jàmm. donc avant nañ muus ñu xam ñun ñoo moom dëkk bi ñun ñooy diriger du politicien ñoom ñoo ñuy diriger. ñun nañu xam fu ñuy teg suñu tànk. mais buñ topp mooy riirandoo bi dóorante bal fii xeexante fii yooyu noonu amul benn njëriñ. nañu xool nañ defar jikko yi. defar xel yi en fait xel yi ak jikko yi bu defaru dëkk bi mënul développé du président du kenn. parce

sama rakk euh, fi ma dëkk xam nga sama ñaari ñaari ñaari kañe yi may nekkal mi paate paate ak muxa <laughs> waaw mi mes amis uh-huh. di ñuy grand fada di ñuy ñëpp petit bisante waaw ku li ñum dum daal maa ngi ziar ñëpp waaw di nuyu waa internet bi di leen ziar di leen jaajëfal uh-huh. bu ko defee tabaski gi daal di mën a neex ndax xam naa ne boo amee xar te amoo loo cay def sax ah tabaski gi dina mën a neex ndax gis nga loo yeew jërë ngeen jëfati ça fait un plaisir ngi kontaan baax a baax te nuyu sama yi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw di li nga xam ne nay mooy émission bu neex bi tey nee naa la maa ngi leen di kontaanee bu baax a baax déjà sama xarit bi moom nee naa lu bëgg a feeñ maa ngi koy bëggee bu baax a baax kenn du moom ah, ah nee naa la moom tamit ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax lépp ah, ah, ay projet am yëpp woo xam ne tey euh, mu ngi ci kanamam mu réaliser ko ñu na gaawee waaye kenn du tamit sama Gomis maa ngi koy kontaane bu baax a baax di leen jox di dajee euh, beneen fréquence ci beneen heure merci beaucoup